xam nga lii moo tax neexu leen a faral lii moo tax man sonko rek guddi sonko bëccëg sonko fajar sonko su may tëdd sonko su may nelaw sonko su may yeewoo sonko su may añ sonko su may reer sonko su may ndékki sonko sonko rek jusqu'à la mort yow sànq maa ngi ñëw di jubilé naan on est fier de toi suñu président de tous les sénégalais eh, discours bi mu tenir tubaab bi envoyé waat ma benn externe ma teeyal ci wax ji ma ne lu xew ñu ne ma président baa nga ne di dàgg sant ak ak xaw ma nan watara euh, ki doon wax dëgg ci suba gi ah, looy tontu looy tontu kii gune gu tuuti gi xale bi boo looy tontu doo bàyyi ba ngeen jël vol bu ngeen see Afrique ngeen réglé ko le leex sal sa la en famille mais boo ko tontoo foofu ci kanam mbooloo mi yëpp nii naan ñëwuñ fii pour man manjan manjan mooy ñaan tudd yalwaan ko kii dafa waxoo ko yalwaan xam nga tamit yéen ñi dégg français war da ngeen war di def ay vidéo di tekki tamit xam nga lii moo